muslimina mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñoo ngi leen di ñoo ngi fii ci émission jotaayu xam-xam yi tey nag ñu war a waxtaane wàllu xam-xam ñoo ngi ciy dalal Serigne Assane Thiam Khalilullah Serigne Assane Thiam nag euh, ñëpp xam nañ ko ci xam-xam ñëpp xam nañ ko ci ci liggéeyal lislaam kon Serigne Assane Thiam ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi lay dalal ci sa ci émission bi nga xam ne mooy jotaayu xam-xam yi yasan bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi jullit yi mbokk yi taalibe yi mbokk yi àdduna bi yëpp ñoo ngi leen nuyu te di leen siyaare bu baax fii ci seen seen bii nga xam ne moom ñuy wax El Vision Média ñoo ngi ciy nuyu ñëpp te di leen siyaare mu mel ni ñëwoon fii tey ci émission bi nga xam ne moom ñu wax jotaay xam-xam ngir fas yéene indi njëriñ loo xam ne at bi si mën nañ cee jëriñ man nag maa ngi tudd sëñ Assane Thiam émission bi ñu ngi ci ànd ak sëñ Malick Sène waaye ñu ngi may gën a miinee ci xalilu rahman xalilu rahman nag li ko sabab mam bi ñuy wax Ibrahima khalil Rahman nga xamni mo nekkon ci ca Ziguinchor nekkoon fa imam ratib Ziguinchor sun borom dogal it ñun amuñu maam boo xam mas def lu dul jàngale di yëngu ci walu ñaan di dimbali ñi ci seen di fat seen xaajo gannaaw bi nga xamni nak sun suñu wajur yóbbu nañu ci daara di ñu jànge alquran jàng xam-xam mm-hmm. ñu gënoon gënd bu yàgg demoon gëstu li ñuy wax ilmul asrar muy xam-xam boo xam ni lépp lu ci aju ci mbiru secret la hmm. mu doon xam-xam bu yaatu it waaye doon xam-xam boo xam ni borom subhaanahu wa taala dana ci jagleel jaam bi la ko soob hmm. ndax diir bi ñu ko jàngi woon demoon gëstu am na nun ci gën a yàgg lool waaye nag suñu borom def lu ñu ci tawféex yoo xam ni xam nañu lii moom ndimbalu suñu borom la waaw kon moo tey jii ñu ñëw fii nii ko jaam yi nga xamante ni yittewu nañ ko lool. jërëjëf jërëjëf sëñ bëggoon xam kan mooy sëñ Alane Thiam kan la juddu sëñ Alane Thiam kan Serigne Assane Thiam moom jafewut a xam hmm. ndax maam yaa ngi bàyyeekoo ci dëkk bu ñuy wax Fouta ca Galwaar hmm. waaye nag toppi woon xam-xam ngir gëstu ma taxoon ñu bàyyi seen yitte jëpp di dox di dox ba ñëw Casamance dëkk boobu ñuy wax ñi Bignona foofee la suñu wajuru góor ganee jamono kon ci gàttal. Mm-hmm. loolee mooy sunu cosaan. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Assane Thiam xalilullah dañ la gën a xam ci lasraar mm-hmm. lasraar bi loo donn la walla loo jàng la wala nan la ñëwee ci sëñ Assane Thiam xalilullah sëñ Malick asraar moom dañ ko doon ci fànn yépp ci jàng ko ci am ci ak jagleel waaye ci am la loo xam ni dañoo fekk bàyyi yeeg maam yeeg maamaati maam yëpp ñu nekk ci ba suñu borom defal ñu jagleel yi nga xamante ni moom lañ ci am jërëjëf jërëjëf suñu Assane Thiam kon mbokk yi ba tey yéen a ngi di yéen a ngi jàkkaarloo suñu Assane Thiam xalilullah léegi nag suñu Assane dañoo ñu ñëw ci wàllu faj mi ak wàllu question yi nga xam ni moo tax ñu daje fi sëñ Assane Thiam lu mën a faj waaw sëñ Malick sëñ Assane li mën a bari na mhm. loolee suñ ko doon lim sax man ñu fee fanaan mhm. ndax wàllu ñaan yàgg nañu koo def di ci dimbali jaamu suñu borom yi mhm. waaye gannaaw bi nga xamante ni weeru waajab bi ci mujj bi la am ndigal ngir yaatal ko ngir mën ci dimbali jaamu sun borom yépp ci mujjug rajab li mu faj bari na lool ndax aaju ju nekk dana dikk fi ñun li tax ñu génn nag di wax muy dafa bari ñoo xam ni ci li nga xam ne moom la ñuy def dafa bari ñu koy tudd woon ñoo xam ni nani waxee ni noonu lañ ci jàmbaaree ndax dama ci dig ka yu bare bari mm-hmm. nit dem ci ñoom su dikkee ne ma seeti naa diw ak diw ak diw nangam ak nangam moma taxolu taxoon te li jittu ci ñaan moy nit ki bu fexé ba jëmum sel la mm-hmm. ñaare bu fexé ba barab bi mi tok mu doon barab bu lap te sel la mu fexé ba yiri yi mi sol lap sel bu saxee ci yor tur yalla wala mu sax ci jang alquran wala di jëfëndiko salatu ala nabi di sàmmanteeg di lek lu lew sun borom mën na ko dimbali defal ko ijaba ci ci làmmiñam defal ko ijaba ci ay jërëm jërëjëf ba taxna mhm. liñ mëna faj bari na lol li ci jitu mhm dañu gis ni doomu aadama yi rab sonal na leen lool te sëñ Malick li koy def ba tax Xalilu Rahman jug. waaw foofu doguma la si asal lan mooy rab. rab. Hmm. rab de moom doomu aadama ñoo ñu ànd. Hmm. dana ànd nit ki nag di ko jariñ waaye am na ñoo xam ne dana seen rab dana ànd ak ñoom bu rab di leen lor. Hmm. ndax mi ni démb jóge naa fii Dakar dem ci dëkk bu ñax Fatick. seeti fa koo xam ni dafa maa wax ni doom ji guddi gu jot day wax ni day am lu nekk ci fenêtre bi di cippilu ci kanam di bëgg dal ci kawam waaye mu ne ba ma fa demee ba ma foofu oññeekoo dellu si waat sow xëy na su wateel woo ma ne ma loolu mujj koo defaat te ci jëflante yu gàtt rek li ñu jëflante ñoom. léegi lan mooy rawxaan ak rab lan mooy seen différence. rab rab rab ak rawxaan ba tey bokku na bare na ñu leen di jaamale lool booy xool rab sax moo gën a mën a def ci nit gàllankoor ka rawxaan ndax ñaari rawxaan moom ci ñi muy faral di taqoo ak ñoom mooy koo xam ni dafa yor ismullahi ahsam di ko liggéey wala mu am salaatu boo xam ne di koy liggéey wala su borom tàqale ko ak moom fii lañ wutee ñoom ñaar léegi yow ku yor rab bi ñëwee ci yow man nan ngay jëflanteeg moom. waaw sëñ ki yor rab li muy jëflanteeg moom mooy gannaaw bu ma ko saytoo. laaj ko turam laaj ko tur wajurum bu jigéen ba gëstu ko. ci tegtal yooyu ñu may won ca laay xam fi may jaare moom ba mën koo faj. ñii ñii du jar bind. ñii du jar jox téere ñii du jar sax nga leen jox lu ñu naan. xam daal su ma dégg di wax si Assane Thiam daal affaire jinne euh, waaw loolu bari na koy wax waaye jinne it hmm. moom it daa bari ay façon hmm. ndax nit doomu aadama gannaaw bu sàkkee gannaaw bu ko suñu borom bindee ba noppi hmm. nit it jaamu yàlla la nit nit doonee jaamu yàlla di jaamu yàlla nit suñu borom dana ko bind mën koo booleeg moom ndax nun ñi ci wàllu jinne boo demee ci dëkk bu ñuy wax Sarkunda Ah. ca Casamance am na sama maam bi wax Babacar Sarr hmm. ci jonwaar gii la bàyyeeko ko woon topp dex gi dox ba foofa hmm. dëkk fa jinne yi ba tey ji ak njabootam ña nga foofa di dox hmm. nga xam ne loolu moom lu yàgg la fi ñun waaye mu doon loo xam ni jinne dafa am ñetti façon jinne bi nga xamante ni mooy des koy doon ndax jinne day gudd fan ak jinne ji nga xam ni nit ki mën na yor turu jinne di ko liggéey ba mu wuyu si ko ñetteel ci topp yi mooy jinne daal di gis nit ak daal koy topp mooy dugg ci biir sadd ko muy daanu wala mu di ko waxloo wala mu yàq ab liggéey bi lu mel noonu daal jinne ci rab la bokk daal déet ba tey moom bokkut ak rab ñoom ñett yëpp dañoo jinne ak rab ak rawxaan ba tey bokkul ndax si alantaan dana faj ku jinne jàpp sëñ am na ci ñooy yoo xamante ne barab yoo xam ne su ma ci demee sunu ko tiimee rek ci kàttanu yàlla. Mhm. moom bu dee yàggul ci moom lool lool am na yu ñuy jëfandikoo koo xam ne su ma ko waxee rek mën naa man mën naa tàqali ko ak moom. jërëjëf léegi si anam ci am maanaam ci wàllu xaalis. Mhm. walla ci wàllu nan lay fajee maanaam ñaata lay fajar maanaam ku rab jàpp. wala ku jëlee jàpp wala suñu affaire moom day ñëw def. waaye yooyu moom. mi ngi aju ci nit yi saabu ñuy ba ma wax xool la ko dal ak sabab ci seen sabab la jaaree ba noppi doo ñu doo ko mën a jàll ci loolu. jërëjëf kon mbokk yi ba tey ñeen ngi ci seen émission xam-xam jotaayu xam-xam yi. ba tey ñu ngi suñu asan caam léegi suñu asan comme suñ la ci gàttal daal suñu asan moom dana faj rab ak ku jinne jàpp daal ci gàttal moom suñu asan dana ko faj waaw moom wér na suñ suñ borom ku ñëw ci moom daal mhm. boo ñëwee ci moom bu soobee suñu borom ku rab jàpp ak ku moom dina moom dina saafara incha allah incha allah léegi nag kon ñu jàlluwaat ci ci ci beneen beneen tomb bi beneen laaj bi mhm. ndax suñu asan caam dana faj kuy ut ay këyit li nga xam ne moo sonal adduna bi maanaam dina yëngatu ci wàllu këyit ak wàllu dem ak Assane Thiam ak ku bëgg a tukki mhm. ak ku nekk ci réew mu bëgg a ñibbisi mhm. doo gis mhm. ndax sëñ Assane yëngu ci yooyu loolu danaa ci yëngu ndax biiru kayit moom sëñ naa ne ba ma nekkee ja daara di laaj ja tàmbali ci jëflante kay nit am ay ay jeex bu fekkee dafa sax ci jaamu boromam ndax sëñ bi dafa waxoon ni buntu wilaya ñene kene yu téye buntu wilaya ñent la arkanu baytil jamiil xawmi arbaatun biha yuhassasu bunyanul wilayat dane sumtun wujuun tawilun bahdu saanun wa uslatun ansiyuhil bil isarat yene nit ki bu ci saxé sa bu woy woowee boromam rek mën na ko wuyu ah ta fekkone sun borom bi di wax naan abdu oo astajib lakum bu ko nak secret lay doon yàlla nag saa bu ku nit ki ragalee rek mu xamal ko mhm. li ñu koy defee it loolu moom sunu sunu sunu yëfi bopp la. waaye ndax foofu it duñ euh, fi taxaw maanaam boo bëggee koo xam si tey bitim réew mhm. maanaam muy lijjanti ay kayit te gisantewu leen mhm. léegi foofu nan nan lay nan nan lay demee foofu boo ko ak koo xam ne gisoo ko nga war koo ñaan ñu war a lijjanti ay kayitam. waaw mu mu mu am ay ay fu mu tàggeeg yooyu. ndax foofu noonu du indi bu fekkee ni yàlla dogal na. Hmm. ay yóbbante dana mën a àgg ca moom. Hmm. lii dañ ko koy jox mu di ko jëfandikoo. Hmm. su fekkee ni nag nekk nañ ci barab boo xam ne yóbbante bi du fa mën a dem. li ci ëpp ci suñu kurus lañ koy def. wutal ko dog woo xam ni saa bu mujj gi demee ba am ñetti waxtu mu jóg toog ci suñu der suñu der. nekk ci tàllal suñu loxo suñu borom ba keroog mu ko koy jox. jërëjëf mbokk yi ba tey ñoo ngi seen émission jotaayu xam-xam suñu Assane Thiam ñu ñëw ci daj dëpp gi mooy li nga xam ne moo lëmbi réew ndax suñu Assane Thiam dina faj nguur ak ku tële ak ku takk xala ndax suñu Assane Thiam mën naa faj ku tële. sëñ Malick loola bokk na ci xam-xam yi gën a yomb tekki nit xala ku tële. waaw. daanaka dana faj ku tëlee. ku tëlee. waaw moom daa am ñaar. da hmm. koy nit ki da koy judduwaale. Hmm. am na ci boo xam ne da koy dab. Hmm. am na ci boo xam ne def def moo koy def. Eh, muy ñett ki nga xam nag ah, ak tëlee moom dafa jóge ci dañ koo takk xala. moom dañ koy tekki. dañ koy tekki. dañ koy dindi. am na yu ñu koy jox mu naan. su ko defee ci kàttanu yàlla loolu dana leen duut ko gisati ci boppam bi ci gën a naqaree faj nag mooy boo xam ne borom du ko judduwaale waaye sama baay dana wax ni ma nit lépp lu mu am yàlla ko may waaye lu mu amul it moo ko ñaanul yàlla nga xam ne ci gàttal loolu sëñ bi doon wax naan mën a xarajal baaba walaj walaj ku taxaw ci bunt di fëgg tëw bàyyi bu yàggee suñu borom dana la tijji lépp